indiwuñ sax ay tontu di ko tontu ci sunu sëriñ boobu muy Baye Mbaye Niass ñu gën koo xam ci MC indiwuñ ci tontu ndax sunu sëriñ la sunu xarit la suñu lépp la sababul fayda bi mu jiite noonu man membre laa ci sababul fayda waaw ñoom bu ma ko déggee dina ko xam ñi fa nekk mu ñu ko déggee dañ ko xam ku am solo laa ci kër gi ku am solo laa ci moom kon du ma nekk di tontu ba bari suma sëriñ la du ma tontuwante moom mais am na ay leeral yoo xam ne xam nañ ko ndax ñun yàgg nañ ak ministre Mariama Sarr meeru Kaolack yàgg nañ ak moom and nañ ak mom xam nañ ko bu fekkone ne dafa yor yenn jukko yi wala euh, mu ñu gis ko ko xamne amu ndirign ci askan wi amul njëriñ Sénégal konoon ñun duñ and ak mom te et puis am bi lu mu wax ne Mariama sar dañ wa ba moom dafa bañ rek dafa bañ rek wa mirina wax jooju man daf ko dama ko deg ci li gëna tax mo tontu ci la bokk parce que ñun yaakaaruñ kenn kurut maulana Cheikh al Islam bañ Niass lañ yaakar moy suñu lepp te Mariama sar depuis ñun ñu xamé ku ci politique ba légui ñok mom ñuy and and bu rafet rek lañu and ak mom te heure buñ taxawé di wax ak mom lepp lu xamni lu rafet la di jëm ci kër euh, Mérina ak lepp lu rafet lu jëm ci njabootu Maolana Cheikh Islam loolu silay wax silay lay dox guddeeg bëccëg képp ku fi nek khalifa te nekkon ak mom xam nga képp ko xamni ni njabootu baye ga Mariama sar daf la jox ciir daf la respecté Mariama sar bu bañon Baye ñun duñu and ak mom ndax ñun amuñ kenn ku lu Baye ànd nañu moom guddi ànd nañu moom bëccëg lii itam yëpp mooy Kaolack itam yëpp mooy mooy mooy euh, population Kaolack te mënoo wax Kaolack te doo wax Médina Baye te moom Kaolack Médina Baye foofu dafa am ñoo xam ne ay wóolëreem leen am ñoo xam ne ñoo jàngandoo man xam naa ci dara ndax nag yónni na ma ba tàyyi ci ay kilifa yoo xam ne ay trang yu muy doxal ñoom la am na fa kilifa yu fa nekk yoo xam ne moo jàngaloo ñoom jàngandoo ñoom am ñoo xam ne xarate na njabootu Baye woo nañ ma ay yoon. di ma yóbbante ci moom ñëw nañ kër këram a yoon fekk mu ci buntu kër mu ñëw dugal leen ci kër Mariama Sarr a Mariama Sarr Mariama Sarr di jëflante ak ñoom ci ay teraanga kon koo ko wax ne ko da nga bañ Baye man dina ma yéem lool te dina ma dina ma jaaxal léegi loolu moo taxoon ñu ci indi ay ay leeral du nag dañuy tontu tontu wuñu de tontu wu wuñu sëriñ bi waaye dañuy indi ay leeral wax leen na leen Mariama Sarr ku bëgg Baye la Mariama Sarr ku bëgg njabootu Baye la Mariama Sall ku bëgg Kaolack la Mariama Sall ku am njëriñ la ci Kaolack. man nag participation yi ren euh, yàlla dafa def fekkeewu ko yi passé yëpp dama doon nekk ci digg bi am ci am ci xam-xam bu baax xam ci mais ren dama tukki woon fekku ma fi mais ñi nga xam ne am na si ñoo xam ne ñoo ko fekke woon xam naa bi ngeen demee si ñoom laaj leen dina leen si gën ay leeral ren mais ni mu daan demee chaque année maire bi si boppam moom mooy génnee moyen am ba pare génnee moyen municipal municipal bi génnee moyen mu ne municipal bi ñaata la génne ñu ne temps moom mu jël dooleem jël moyenam dolli ci loo xam ne moom mooy dem ci banque am mu génne ko man mi yónni na ma ay yoon may dem ci banque am di génne xaalis loo xam ne day jëm ci gàmmu Médina Baye jëm ci mbiri Médina Baye président de la république itam daf koy taxaw di waxtaan ak moom di ci wax ci li jëm ci Kaolack disoo ci moom ba président jox ko appui yi nga xam ne moom lay indi Kaolack te appui yooyu bu ñëwee itam maire bi loxoom sax du ko jaar ki nga xam ne moo ko jëlee présidence ñëw ko téye ko ah dama am am na yoo xam ne man mos mos naa ko jëli présidence am na yoo xam ne nii euh, Salif Diallo Salif euh, Diallo mi directeur docteur Diallo mos na ko jëli am na yoo xam ne ki ñu wax Basirou mos na ko jëli mais ni nga ko jëlee président ñëw ko boo ñëwee nu nga koy téye ak fooy bi ànd mu mu mu organiser benn commission commission boobu ñooy wër di ko joxe di ko joxe di ko joxe ni ko présidence bindee. lépp loo xam ne président bindu wuñ ko nag dañ ko joxe ne lii pour euh, njaboot gi la noonu dañuy ñëw jox ko kilifa moo xam ñu jox ko imam Cheikh wala ñu jox ko kenn mais kilifa lañ koy jox na ko lii nag dañ ne nañ ko séddale njabootu baay gi mais Mariama Sarr na na moom njabootu baay gi yëpp amul sax maqaama pour séddale leen wala nangam yow mi nga xam ne nag yow kilifa gi mu ngi nii ñu teg ko sa loxo ñuy seet duñ koy séddale noonu lañ ko daan doxalee ren nag xawma nan lañ ko doxalee parce que dégg naa ci kilifa gi mu ne Mariama Sarr xaw ma cent vingt mille la ko jox xaw ma man mosuma gis Mariama Sarr di may nit di ko may lu jël sax surtout ma kilifa même bu fekkee ne dafay may dafay woote ñëpp na ñëw leen Tambidou ñëw leen euh, laat ñëw leen ñu ñëw euh, jigaan ñëw leen euh, Lamine yi ñëw leen woo ñëpp ñu toog mu ne li ngeen xalaat ci gàmmu Médina Baye soo proposé sax ba proposé sax lu yem muy la yow mu Tambidou yow néew nga xalaat de loolu tuuti na kilifa kenn du ko jox loolu dafay jigati ay matériel ndox boisson yëpp jox leen ba pare jël enveloppe teg ci encore te loolu nag daf ko doon def avant muy nekk maire da doon génn man ba may ànd ak moom boobu nekkul maire Kaolack te loolu dama ko doon def avant muy nekk maire amul benn loo xam ne du ko def su dudee gens waxtaan xalifa yi nga ñoo fi nekk xalifa ku mu mënta nekk xalifa Mawlana Cheikh Islam Mariama bu rafet la am ak yow day taxaw di dafay wax ak yow téléphone sax man xalifa Mawlana Cheikh woo na ma ma passe ko bi téléphone mu wax ak ñoom ci lu jëm ci euh, lu jëm ci euh, Kaolack ak lu jëm ci Médina loolu loolu loolu man mën naa koo seede ren nag dafa ma fee fekk moo tax mënu mu ci waaye ni doon di doon demee alalu boppam la doon jël def ci jël alalu municipalité bi def ci li nga xam ne mooy ko présidence bu ñëwee mu teg ko seen loxo moom du ko laal sax commission bi nga xam ne nii ñoom ñoo ko jëli présidence ñëw ko ak liste yooyu noonu lañ koy ciyee bu ñu paree ñoo rendre compte na ko def nañ lii diina bu nekk fii Kaolack nag noonu la koy noonu la koy noonu la koy moo tax euh, wax ji ñun buñ ko déggee yéem nañu lool lool lool mais nag euh, dañuy sant yàlla rek parce que euh, ku nekk kilifa moom il faut que nga dégg mais Mariama Sarr wax dama koy wax ma ne ko boo ko jiite il faut nga dégg Mariama Sarr euh, jigéen la mais kilifa la te war dafa jiite dëkk surtout ma dëkk bu mel ni Kaolack ma bañ ñu wax la dara sëriñ bi itam duñ euh, euh, koy siyaare bu baax a baax di ko ndokkeel di jégalu bu baax ci kàddu yi mais xam nañ ne wax wax na ko sax si biir kàddu parce que déglu naa ko ne na ma man Mariama Sarr bañu ma ko wax na itam ne Mariama Sarr sequñ dara jox jotewuñ dara wax na dëgg ndax Euh, Mariama Sarr jotewuloo moom dara man yàgg naa ànd ak Mariama Sarr ayaat mais Mariama Sarr ku am cofeel la ci njabootu bay gi rawatina nag euh, Baye Mbaye MC moom ndax lan nu mu ko gisee muy encadré ndaw ñi ak ni mu gisee mu am yitte si ndaw yi moo tax ku ko ku ko naw la moo tax sëriñ bi euh, ku mel ni kilifa gu toll ni moom ak dayo gi mu toll am na yenn wax yoo xam ne soo ko il faut nga suraale sa njaboot parce que ñun ci njabootam lañ bokk njabootu Mariama Sarr lañ bokk motax bu wax ji amna numuy démé rek dina bëri ñu bëri bëri ñoo xam dañu tousi man li may def ni du sax luma neex kaddu yu ma bëgg wax la mais suma ma duma mën nelaw damay tok tant que wu mako duma duma nekk parce que mëno and nit ku melni Mariama sar ak effort yi mi def mëri baye yow nga nekk taalibee bàyyi yaakaaroo kuru baye ñes gëmoo kuru baye ñes nga gis ko effort yi mi leen di mi def ak gëm gi mu gëm waa Mirina ak gëm gim leen euh, gëm ak gëm Baye Niass di ci ray boppam di ci def guddeeg bëccëg ah, waaw centre de santé bu Mirina Baye bi amul lum ci dajul pour loolu taxaw keroog bi ñu defee première pierre bi maa ngi fàttaleeku keroog ba ñu ñu wëne mu ne ma mu ne ma tàmbali mu ne ma sama na guy lii comme yàlla di def nag mu taxaw bañ ko ma ne ko ah maire lii pareegul mu ne ma pareegul waaye comme centre de santé bi taxaw na rek comme def nañ pose première pierre xam parce que man dama nek ak mom xam yene bi mu am ci wa Kaolack yene bi mu am ci population bi ak yene bi mu am ci mirna Baye kon nak yeewoon la ñukoy wax leneen moy yeewul ñukoy ñukoy nek diko xass diko wax yene ku politique nak mëno bañ ñu xass la mëno bañ ñu wax la surtout ma politique Kaolack nga xamne dafa doy war ndax amna ci ño xamne mom fépp fuñ la mëna yàqale rek danañ la fa yàqale parce que man gis na ñu bëré bëré duma wax sëriñ bi nak duma ko wax ndax xamna ne maqamam toll na foo xam ak garatam kenn mënu koo nekk diko ko wax lolou lu ngorul wax mais amna ñu bëri Sénégal di Kaolack gis naa ñi ngi taj Mariama Sarr di wax dañ leen a dañ dañ dañ dañ leen dañ leen dañ leen dañ dañ dañ dañ nit moo leen moo leen fay nit moo leen waxloo nit moo leen di bëmax pour ñu dem ci Mariama Sarr te kooku intérêt personne kese moo des moo moo tax waaw am na si ñoo xam ne Kaolack ñoru leen population bi ñoru leen xamoo lan moo leen ñor seen alal naka lañ koy sàmmee naka la ñuy fexe bu yokk seen alal loolu moo leen ñor ñooñu nag nuñ ko mën a amee baax na ñu mën a amee nit ñi baax na da di jaral sax ñi nekk di fay ay nit pour ñu dal ay nit di ko xas di fay ay nit pour ñu nekk di saaga ay nit loolu nag du rafet du politique bu rafet du rafet Mariama Sarr na moom xamul loolu Mariama Sarr xamul politique bu xasatante xamul politique bu saagawante xamul politique bu ŋaañŋante politique bi mu xam mooy waxtaan ci xam-xam wax ci njekk wax ci rafet wax ci diina wax ci euh, bëggalante bëggante te yàlla tax dimbalante yàlla tax waaw loolu la loolu la xam commence depuis maire bi faloo commencement bi ba léegi déggoom benn coow mais comme élection locale muy ñëw ñëpp kenn ku nekk day wax ni ñu la mën a yàqalee rek wala ni la mën a xasee wala ni ñu la mën a kiyee dañu wax ba pare bëgg a santas euh, président wala wañ loxo président mu jiite keneen mais Mariama Sarr président ba président Macky Sall depuis mu commencé di gagné élection Kaolack fii Mariama la doon jiital Mariama Sarr parce que parce que gëm-gëm gi nga xam ne moo nekk ci Mariama Sarr ak dëggu gi ak fulla gi ak fayda gi njëriñ gi amul ci beneen leaderu politique kon nag président bu euh, li tax mu tànn Mariama Sarr di ko fi jiital loola da koo xam te Kaolack xam nañ ko population bi xam nañ ko euh, sama sëriñ bi sax bàyyi may wax na ko mu ne Mariama Sarr bu ko président jiitalee dinañ fi gis lu lu yéeme dinañ wàcc kii mais euh, sama sëriñ la maa ngi koy wax ma ne ko nañu bàyyil Mariama Sarr ci Kaolack parce que amal nañu njëriñ trop am na njëriñ Kaolack te am na njëriñ na bàyyi parce que ñun li tax ñu koy wax waxuñ ko pour suñu bànneexu bakkan rek ñun dañuy ànd ak Mariama Sarr ba pare ñun dañuy dëkk Mérina ba pare dañuy nekk taalibe bi ci kër gi moo tax comme euh, sa ton sa sa laaj bi élection locale yi ñëw mouvement mag dana ñëw incha allah ak doole ànd ak ministre Mariama Sarr te bi ministre Mariama Sarr maire Kaolack moom mooy nekk suñu candidat ci mairie bi moom lañ bëgg mu toogal ci mairie parce que moom mooy njëriñu Kaolack gis nañ procès yi nga xam ne nii commencé na ko fi dëkk bi mu ngi am ay làmp lépp matul mais muy sensé bu baax mbalit mi gis ngeen gis ngeen ko ni mu ni mu wàññeekoo am na yeneen canalisation yoo xam ne nii ñu ngi koy ñu ngi koy def ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bi biñ ko médiatisé woon parce que sëriñ bi wax na ne na bi ngeen génnee ngeen génn ci askan wi ngeen laaj leen mais génn leen ci askan wi ngeen laaj leen bi ngeen leen laaj yéen journaliste bi ngeen laajee askan wi ñëpp mënuñoo matal yàlla suñu borom sax am na ñoo xam ne dañ koy ŋaañi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën mbind mooy gën a bindeef am ñu am si ñoo xam ne sax dañ koy ŋaañee Mariama Sarr mënul bañ ko ko ŋaañee mais boo dajee fukki nit bu ko ñaari ñi ŋaañee juróom-ñetti ñëpp danañ ko danañ ko danañ ko danañ ko sant gërëm ko moo tax li nga laaj noonu élection locale yi incha allah ci kàttanu yàlla mouvement mag dana ci dem ak doole ànd ci ak ministre Mariama Sarr te ministre Mariama Sarr maire Kaolack mooy suñu candidat te ñu ngi ñaan président de la république noonu foogoon ni mu daan jiitlee Mariama Sarr muy gagné ñu ngi ñaan mu jiitalaat ko mu dellu ko gañeel ko ba pare yeggale projet yi nga xam ne nii moom la am am Kaolack mu nekk njëriñu Kaolack nekk njëriñu ñëpp nekk njëriñu Médina Baye